lan invité sëriñ Serigne Medoune Seye borom tawféex mu wax loo xam na que ci xam-xam ñëpp xam na ne kii du koy làmbatu kon ku daj la ba pare te yéeneen na leen xam-xamam moo waral muy wax ngeen di jàpp di noté am doomu aadama lu mu wax nga toog di seetlu sa bopp ci biir xam na kii li muy wax defe naa mi ngi doon luy dugg ci sa xool bu baax a baax di yokk xam-xam nit ki xam lu mu war a moytu ak maanaam daal li naan waaye wax bu yenu maanaam ko dégg xam ne li yenu na maanaa serigne medoun sey borom tawfiq bobu doylu len ci motax doylu ma ci ma duggaat ba amo koj ko wor ko gis ko indi laat len ko mo ngi ni serigne medoun sey borom tawfiq ñi rcs ci aduna wor gën kep ci émission tektal goor jigen mag ndaw kenn du ci doyal ñepp yow lañu déglu jakkalo yow ndax kontanon ci émission be moral ñu sakkuat ma indi wat waaw cheikh ñu lay nuyu borom talifi borom olof yu di nuyu comme ni ñu ko def woon weesu di nuyu ñëpp di yéene ñëpp jàmm ñaan suñu borom képp koo xam ne jamono ji nga àddu mu ngi teewlu du ñu seetaan seen chaîne RCS gi ci leget gi. Mhm. wërngal këpp. wërngal këpp ni ñu koy waxee. ñu mhm. ngi nee naan ñëpp jàpp loxo li wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. maaleykum salaam euh, Serigne Medoune Seye bañ nekk fi di di. arabal fofu di wax ki di. waaw arabal fii gàttal ko waaw ko. jox salaat wi fi ki dama koy teunk ndax yoy daaw naa ko dafa naa dama japp ni. jamono ji. jamonoy pas pass la. ak jamonoy ñak jot gaaw lepp lay def nga def ko ci waxtu bu mu jeex. dul fi nañ fi pour wone ni bon kii sëriñ. nekkul da ngay waxe arab wala nga lak jël ben salat fi wala ben nangam wala jël ben ay kep wax wax yow mi yow xam nga ko. Mhm. boo koy wax pour kan nga koy wax kon jaratu ko. Mhm. nañ ci dem rek bañ ko aaral. waaw bañ ko dugg ci détail yoo xam moom. daanaka amul solo mhm. ay kii la gis leen nag. loolu ci waxtaan bi la. ay sóob la rek. yéen ay ay dóor martalo rek. comme yu mel noonu comme yan ñu xàmmee dóor martalo. su nga teg ko foofu pour nit ñi gis ko dóor martalo. ut ay xaatim yu bëri teg ko. fu ne ñu bind fa kii nangam mën naa am sax bindoo ko dañ la koy bindal euh, dóor marta la mhm. maanaam mbir mi nekkul ci li ñu muy li muy gis ci bëtam pour nga ko maanaam foo dem ci bërëb nag mhm. ngi ñoo la fa ay bopp golo bopp xaj ay géem fii ay bëñu nangam ay béjjén fii yooyu mhm. ay ndaa fii ay waaw bu ma déggee kuy ñaan la daal ñangu. waaw da wan lu da lay wan lu da lay bëggoon lu la yéem lu bu la waaye kii affaire yi foofu nu mu garaawee dara garaawu fa. parce que bopp xaj ba mu fa teg bu xaj bi bu xaj bi boppam dara duñ fa teg boppam day dund di lekk yàpp comme ñëpp. bëyam bu fa mënoon dara borom bëyam du fi toog day dem di lekk ci ngooñ meeg ñax mi comme ñëpp yooyu dañu ko def pour amadoué la maanaam pour tiital la pour nax la pour impressionner rek la. mais loolu impression yooyu ñuy jéem a ut ci nit ñi kiraama yooyu ñuy jéem a ut di ko jéem a wane wala jéem a wane yu yéeme yooyu wala kaawteef yooyu loolu du solo bi. Mhm. solo bi fexeel ba. li ngay li ci li nga nekk di ci jëf nga jëf ko na mu gën a setle nga teg ko ci nag ci xam-xam yi yëpp ay caaxaan la yow dama gis ni da ngay dal gaay xeer yu rëy ndax yow est ce que nit dina la takkal pod yow ñëw naan sëñ ma doon sëy fi doon fajee gisuma résultat wala li ma doon ñaanal gisuma ci dara xel yu mel noonu ndax dina la faral li ma doon ñaanal gisuma ci dara nit duma ko wax xam nga nit duma wax li ma doon ñaanal gisuma ci dara mhm. te tàmm laa damay ñaan boo amee santal yàlla ma sant yàlla so amul muñal ta sant yalla mu ta sant yalla xamni yalla moy may su ba amul duma la ñaan dama lay may kon man diggu na la lu extravagant mhm. ci xam xam ci la ma xam ci la ma man ci la waxe yow ci la jëm sama xet ñaan yow man ak yalla dogal ci man koy lek ko est ce que dina yomb nga bëgg dalé ci kawam dalu metti yo nit ki ku nit ki soxla xaalisam mané ko lan maam comme ni mu ne ko ah ma ngi lek sa xaalis mais nak yalla la ni baye mbiri ak yooyu ah lek lek sa xaalis de mhm. <coughs> nu muy mbir man ci wàllu baat lu ci ëpp. du ma sax laaj nit ki ne ko naa nga ma jox. mais yoo xam nag dafa am ay yenn xeetu rab ak wala yu ci nekk yoo xam ne dana ak ay sarax yoo xam ne man su ma dama koy danga ma koy jox pour ma génn sarax yooyu man pour man sama bopp. pour mhm. aar sama bopp man. Mhm. parce que nga dugg ci liggéey boo xamante ni ci wàllu baat loo xam ne ay risques yu ci. risques yu diis. li may protéger. sarax yi ma war a génn du ma génn sama xaalis yaa ma koy jox lu ci génn wala ma protéger sama bopp. appel buñu paré ci loolu yow nga sét loo may jox nga jox ma man du fekk ni ci loolu ci fajj hmm damay fekk lu mat sekk bo fekk lu mat duma la faj. ah fajj boo wéré waaw ñu sant yalla boo wéru nga sant yalla ne man néwuma ma ku ma dé waxuma ko dé dama am xofa faj nga mais dama ni fukk yu ma fajj juroom ñett yi ba juroom ñett yi wër nañ wër na 97 man am ko yàlla moo dajal lépp am na ñoo xam ne seen feebar du wér dañuy dee lu ma ci man xamal lu ma ci am solo su ma nee dama lay faj di jël sa xaalis di la jox garab daf ma wóor ne la nga may faj loo xam naa ko mën naa ko faj daanaa ko faj yàgg naa koo faj ma faj la ci loolu waaye wér bi suñu borom moo ko moom man jumtukaay laa yor ak xam-xam bii def loolu ma dox ci loolu waaye tey nga wér par force man bu ma feebaree damay jël ay garab faju comme ñoom te wóoruma ne yëm da ya, wér. jo hôpital wala ci. man li coob maa faj sama bopp man demaguma hôpital nit docteur moom tiimaguma ci kàttan yàlla je touche du bois. Hmm. xam ah, nga mi mel yow fi mu nga ne da ngay dem Thiès. Hmm. wala ngay dem saint wala ngay dem benn li am solo mooy nga xam ba xam saint am oto bu baax def ci essence am chauffeur bu mën am ay def jëm damay egg saint par force loolu du wax nga bay ci loxo yalla mën nga yor loolu lepp am chauffeur am tout am essence bu doy auto bu baax lepp dem ba croisement jam ñaanu auto bi pan te do xam lu ko panal auto bi mëna dal fenn do xam lu ko dal fenn ag bi suñu borom mais defal def kuy dem tukki sama toka yépp nga jël ko xam yoon bi xam fu nga jëm xam nañ cey démé mais kuma fat nga wér mhm ku dégg maanaam daal nit nga ni ñi nga mës a faj ñëpp a wér loolu ay kàcc rek la ah ku ko wax am na ci ñoo xam nag duñu wér nag ndax nekkul seen ñàkk wér nekkul ya, la war def nga li la war mais ma dugg mais kon hôpital ñaar di ñooy faju hôpital te duñu wér te kenn du ñëw ci ñun du bëri hôpital lañ jaar ba sonn doog a ñëw ci ñun ci ñoo ñun ñi hôpital tële daa mar nag fajkat olof mënuñu si ñoom dara. ñooñu hmm. ñooy ñëw ci ñun ñun ñi ñuy hôpital ci ñun la ñuy jukki di ci faj ñuy wér waaw kon li tëwoon nga dund ci lenn bu tëwut la ca des tuuti nga xam ni yàlla. waaw ah. hôpital bu fekkoon ne ku fa dem wér duñ fa defar morgue ki dem hôpital morgue bu yóbbu waaye da ngay gis noonu la ñuy mujj morgue ba àdduna noonu la. Hmm. kii day wér kii di wér kii war a dee kii nangam loolu moom suñu borom la mais li am solo mooy yow sa conscience la tranquille diw ñi may faj xaalisam bi ma jox wóor na ma li ma ko jox luy faj la lu war a faj loolu def na ci sama tombe ak tek na ko ci xam-xam bu wéré santal wéru mo xam ni moom wéru yow dal tektal yi dal respecté nga ko dal ah respecté na man luma xam xamul dama ci dugg mhm. te do wax ne man nga lepp yalla rek sa man mënuma len yalla rek sax man nit ko mun sa daamut yalla rek a man mhm. ndax kaas ataaya sax boo ko téye ci kàttanu yàlla nga ko téye ndax yalla bu rek carte ñu gën a ci fajj lo ci gëna ay ci li ni faj yépp mo xam ne ko ku ñew alé bi retour bi du ko yóbbaal man may messi yaay messi ya messi ci fajj waaw comme wàllum faj yaa ci toog. maay messi maay xalif général bi. ah man gis naa ñu ne ñoo xam ne dañ naan mën na lu ne de. yow waaw waaw man moo tax ma mën leen nag ki xam ne mënut. <laughs> moo gën a mën kii ne mën na lépp ndax boo nee mën nga lépp dootoo mën a ci dara. waaw moo tax ma lay laaj loo gën aay loo xam ne que lii moom. tubaab dañ naan comme daal lu ci borom. daal xam na lépp wala mën na lépp rek xamatul wala mënatul xaw ma ci xam-xam la bokk nit ki xam xam li xam li mu tële ah. bokk na ci tax mu mën am xam waaw moo tax dama bëgg ñëw ci balaa ngay ñëw ci li nga tële li nga gën a aay bëgg xam lan la déggu la man déggu la man man maay Messi lan la gën a aay Messi dara ci de kon man ngi kon ci biir dara ci ah, dama dara du man jëf hmm. man yor ak sabab hmm. su ma jaan day wax ne sabab lu leen te bañ a yëngu dama lay laaj di nga faj cancer wala ko faj lan moy cancer. cancer feebar bu siiw wa waaw luy cancer yow wala nga luy cancer luy cancer ñu bari tok ci radio rek tay di wax cancer ka xamu sax luy cancer. man bu ma kay du ma intima toog wax nit ñi cancer ngi li lii ko indi ak nangam nangam. cancer wa déjà ben cancer amul ay cancer mo am. man le cancer dama les cancer déjà batu cancer batu grec la. bo don tek batu cancer ci français xam lu ñuy tek littéralement karab xam lu luy junqoom junqoom dañ mu jële feebar boobu ak junqoom ndax junqoom ni mu mel ci formam ci tànk yi ak këll bi ak buy dox mu ngi génnee tànk yi par nànk ni mu yeexee mm. nga am day def nànk di dem nànk kaas itam maanaam ni muy duggee ci nit di dem par nànk di ko lor par nànk nit ki du yëg ni mu ngi loro ba xëy mën a pëf mu dee moo tax ñu méngale ko ak crab cancer baatu grec la mais latin bi mooy wax carcinos war nga di ñëw la cancerologue cancérologue mu ngi jógee ci cancer bu jógee ci grec carcinologue mu ngi jógee ci carcinos bu jógee ci latin méngale karab boobu kan xam nga luy cancer. mooy li ma defoon lu garaaw lu kii di di coow di wax. cancer leen kese la. mooy lan. gis nga doomu aadama ay cellules ñoo composé dañuy wax ay cellules comme bu doon kër ay briques la Sénégal bu ñu nee Sénégal parce que ay citoyens ñoo fi nekk. yow mhm. citoyen nga man citoyen laa ñoo yem. Mhm. organisme doomu aadama ay cellules ñoo fa nekk. cellule bi mën taxaw taxawaayu citoyen ci nit ki cellule yi ñetti composition la am membrane cytoplasmique bi noyau bi ñoom ñoo li nga xam ni moom mooy membrane cytoplasmique ak noyau bi. Mhm. mooy li ñuy wax cellule. yi ñooy dajaloo ba nekk nit comme ni senegal citoyen dajaloo ba ñu nekk senegal cellule yooyu cër bu nekk ñoo ko composé. cër bu nekk dafa am ay cellules spécifiques yu fa nekk cellules yooyu dañuy dund di lekk di am ay toilettes di màgg di jurante di dee comme nit cellules yooyu dafa am norme boo xam ne moom la ñuy jurantee dafa am norme boo xam ne war a tol fa la ñu war a yam lañu war a doxee la war a mel organe bu nekk ni cellules yu ci nekk ak ni mu war a mel. dañ ko ordonné équilibré ko comme Sénégal fii citoyen bi nu ñu amee ay normes bu ñu ko teg ñun nag bul jël yëfu jàmbur bul tox yàmba bul def nangam bul def nangam ni ku def li ñu def lii ordre boobu établi boobu nit cellule daf ne am tam ordre établi léegi ci wàllu cellule yooyu. Mm-hmm. ni ñuy jóorantee ak fu ñu war a toll dafa am lu war a toll su demee ba ëpp li ñuy wax ADN bi day joxe ndigal pour ñu wàññi lu ëpp li su manqué. mu joxe ndigal pour ñu indi li nga xamante ne mooy lu. ñu fi dañ koy réguler bu ëppee. loolu ñu wàññi su manqué ñu yokk ku def lu war a def ñu dindi bu amee bu dee ñu remplacer ko ordre boobu doxin boobu ni ñu ko war a indee. noonu la lañ ko war a équilibrer. maanaam war am ordre am norme am hiérarchisation bu normal léegi day benn jamono nag cellules yooyu jékki-jékki nag ñoom di def nu leen neex di multiplier woo nu leen neexee di jurante nu leen neexee bu ñu waxee na cent ñëw ñu indi deux cent bu ñu waxee na quinze toog la vingt toog buñ ne waaw teg tal teg ataaya tal ko waaw teg waaw ci la bokk ah. waaw war nga day war ci dara waaye yow moom fi ne la yow xewloo ko waaw non fi nekk yu bakkan yi ñuy defar kay moom. waaw xew na ko. Ah. après boo xew donc ataaya bi la. Ah. war nga daa waroon war li nga lekk. war nga day war ci dara bu loolu après da lay war. mais kebe dafa fër sax après sànq. waaw kebe mi dëkk Sidi Bisaab. Ah. xam na li ci Bisaab ak kii moom ba moom dëkk na fa Bisaab fa di xaar. waaw Sidi Bisaab du de. Sall. waaw bi ah. Ndaw. Hmm? ñooñu ñëpp Sidi Bisaab lañ dëkk xam naa Sidi yi ko. Euh, ni cellule na xam pour ko hmm. mooy cellules yi déséquilibre boobu ñu am. waaw maanaam ñàkk dégg dégg ñu am nga xam ne dañuy multiplier d'une façon désordonnée. Mhm. maanaam ñi mu war ni ñu waroon ordonné ordonné tuñ ko. Mhm. loolu moo tudd cancer. mais sabab bi lan la. ki ko amuloon xëy ba. waaw loolu mu am ko. cellules yi mooy jékki-jékki di koy multiplication boo xam ni seen ordonné te normalisé ko maanaam tolluwaay bi ak ni mu war ko dañu bañ. di def lu leex bo boo naree jékki rek dajalo fen def fa benn numb moo nit ko xam ne nga jek bi sayram fen mhm. fenn fa am ben bul mhm. wala lu melni newe te seet bi wax dugal yaram jógal gaaw mhm. loolu la tumeur mo wax dajal yoy sel yoy dajal fo mo indi tumeur boobu tumeur mi ngi joge ci wax bi me wax di tekki néewi néewi gonflement wala enflement yi ñu wax foko ko dañuy yëg di wax waxoon la ko ah da nga yëg di wax yero di wax déedéet ku yër fo nga tek li nga doon yër bo ba ndax bu la soree dootoo dootoo ko meuna batin la ak bëtineel bëtineel moy yeur batin moy yek yek yek lolou dañu ci mos a waxtaan yek <laughs> yëg ci ci lolou sëñ yooyu ñu amee discret bu non def tumification boobu loolu la ñuy wax mo am tumeur benin am tumeur malin benin moy bi nga xam ne wut yokku dafa yam mais bu malin bi dem ba indi yeen li ngeen wax cancer ba meuna ray nit mu bari façon nak cancer yu amna cancer deret direct amna cancer wen amna na cancer utérus am na cancer prostate amna cancer anal amna façon cancer cancer euh, du rectum amna li am ci façon cancer dafa bari waye lu ci mu am moy mooy bobu am ci cellule yi multiplication ni muy désorné ne mom motax ñu wax cancer mu am nag façon yi cancer yu bari mu mën a ci bërëb nag dajaloo fa jékki-jékki dem ci beneen bërëb lu mel comme Casamance rebelle yi fa nekk. Mhm. dañuy def indépendance loolu neex na def ko. boo doon misaal ni rebelle ni rebelle Casamance mel ci Sénégal loolu la cancer mel ci jëmmu nit dafa mel ni euh, Casamance cancer la ci Sénégal. mais xam nga rebelle yi tamit bu neen jàmm ne bu ñu bëggoon a indi jàmm jàmm am. nit ki nag mën naa bëgg tane ba pare tane ko. waaw moo tax ma ne la léegi désordre boobu nag. def ma sama so ma neex moom ci yaram bi ci cellule loolu mooy tekki cancer. bu jógee ci bërëbam dem ci beneen bërëb nag ci ngay dégg ñuy wax métastase métastase moom it baatu latin la jógee ñuy wax métastasis maanaam je me déplace wala je change de place maanaam jóge naa ci bërëb dem ci bërëb. moo tax ci wàllu tam terme médical yi moo tax. faj mën a lire analyse interpréter ko. Uh-huh. mën lire xam. ci soow mi li ci war a nekk yëpp pour mën xam urée yu mel ni biir bi ne yooyu yooyu nga mën ko xam mën a dem ci sang bi xam ñi ci rek yooyu yëpp ngay mën lii di alal mooy tax nga mën xam terme la gangrène nga xam su su lii al nga gis gangrène di nga xam ne kon nangam am na parce que gangrène tamit ci baatu grec la gangrène woo maanaam je mange day lekk yooyu terme terme yooyu moo lay may nga mën a xam boo yotee analyse conclusion mu ci def nga ma ne kon kii cër wala cellule sàngam moo mën am problème moo tax ci wàllu cancer d'une manière générale déséquilibre la. ci ci ci seen. cancer góor jigéen lu mu gën a sonal. cancer xamul góor xamul jigéen xamul mag xamul ndaw. xam ku sant jaxum ba ku sant géey am na yenn si ñoom bu gën a ci gisee ci moom na ci teel a jóg maanaam jekki-jekki tufli lu mel ne deret benn tiital waxuma wàccu tufli tufli waaw loolu la ñuy wax hémoptysie waaw un mi ngi jóge ci baatu grec buy tekki sang tisis bi mooy tekki craché tufli deret bokkut ak nag hématomèse hématomèse mooy wàccu deret ki tufli deret ak ki wàccu deret bokkuñu mm-hmm. tufli ci bronche yi ci eh, ci xëtëri la ki wàcc deret te gën a graawle ñu wàcc deret ànd am ay cancer du du du mu wala ulcère wala nga am cancer ci euh, mbàq meeg pylore beeg bulbute beeg et cetera dina ko def wala ki dem toog rek gis sang man du loo gis deret rek nga ni hémorroïde mu ne nekk cancer. Mhm. bu dee cancer deret dafay xonk curur wala nga am ay faux besoin maanaam am envie dem toilette soo demee doo def dara ñëwaat toog toogatul am envie doo def toog yooyu tam wala amoon benn picc wala benn sotintal nga jege gis mu commencé di màgg jóg yooyu ay signe cancer la wala ngay lekk booy wanaasu sa put bi di xat li ngay lekk du mën jàll mu lay faral daal signe cancer la yooyu wala nga daan nekk jekk-jekk di jeex amatuloo appétit yëpp ay signe la cancer nag signe yooyu ngay xam nga teel ci jóg balaa muy feeñ parce que àla fu nit ki demee définitivement day fekk ni sori na doo ko yëg moo moo lañ koy woowee le tueur silencieux moo tax tubaab ne cancer ci grec bi ci latin mu ne carcinos méngale ko ak karab bi ci yéexeenu doxinam ak melokaanam ci tekkam bi mun a teg fekk noonu la garaawee kon nit kitam dafa am. war di ak ci déglu bopam hmm, déglu bopam mu musal nemmeeku ci boppam bu koy nemmeeku mu jël ci ay matuwaayam. ay matuwaay mais cancer di bëri la mais cancer yow euh, ñu bari dafa xaw sensible ci ñom uh-huh. yow est-ce que mos nga wax ci cancer ba pare Ben docteur critique la wala yu mel euh docteur moy ku jang médecine. Mm-hmm. xam ko. médecine bu chinois ak bu japonais ak bu français ñam 1 plus 1 égale 2 science la bu dafa wax chinois dégg la japon dégg la sénégalais camerounais dégg la yépp c'est la même chose xam-xam xam-xam la dafa wéx wala dafa ñuul rek la mhm. ki lay dégg la wax bu am xam-xam la dana xam li ngay wax ni am logique la wala logique bu logique mënu ko dindi lépp je défie résumé la mhm. keneen koo yaakaar mu ne teg ko plateau ñu toog ñu toog. Mhm. gis ko si benn élément ci nit. kon d'accord nga ba indi kenn. ngeen ngeen débattre ci benn feebar rek. su ma débattre moom bu débattre ba ma pare su dootul dootul waxati te lu fu mu yem moom fa laay tàmbalee wax ko leen lu mu ci xamut. jaax dinaa la jënd tegtal. mais dama ne la. Mhm. science science la. un médecin bu may déglu may wax. dana mhm. xam ne kii li wax lu mu xam la lu logique la. loolu la jàngi woon moom te moom bu ko bëggee wax day livre di ko. man dama la ko wax te du ma xool. tey ak ni libur di naan sa kon nag xam-xam xam-xam. mooy li nga waxoon de da nga yëg di wax waaye yoroo di wax. yoruma. léegi nag fa la mbir mu nekk mais. Mhm. un scientifique. lu mhm. nekk bu ñëwee la science. est la mhm. science. léegi boo doon jox ay euh, diggante cancer ak euh, hépatite B. loolu ci mën a wax. hépatite B xam nga da nga ne hépatite la déjà mooy lan ñaari baat la. hépat ak tit. ci wàllu dafa am ay termes yoo xam ne. léegi balaa ngay sori ci hépatite B may ma askan wi ñu bari ñu ngi noté di xool kii fan lañ koy jotee ma jox leen numéro bi bindal bindalal maire bi bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexu ki wax ci salle noppi yow muy seetaan ci TNT bi numéro 10 bi numéro 10 bi LCS moo koy mooy numéro 10 bi xam ma ban seen la kaay gaa yi fu mu nekk mais LCS moom xam ngeen ne 10 bi seen bi am legit ci mag ñeeg góor ñeeg jigéen ñeeg ndaw ñi yëpp moom la seen seet jàppal leen benn waa 77. 390 53 53 77 390 53 53 90 9 0 pour muy d'abord, 76 498 52 52 498 52 52 76 498 52 52 9 pour 88 498 52 ñaar yoon numéro bu 76 ngay jital sëriñ medul sey borom tawfiq nga fekk ko ci amo tabes dis ko sa soxla lu ci man mu def ko leneen ñu baye yalla mi nga xamne ne tëlewul dara ta man na lepp sëñ medul sey borom tawfiq bala ñuy àggale ci hepatite B bi fofu ak cancer ci digënde soosu alterné di lundi ya ngi fan alterné war nañ nekk mbuur en principe mardi di talata ñu nekk dakar fan ci Mbour ak fan ci kii pour muy leer Dakar amoo tefes la. Oh, Mbour dinañ fa nekk dinañ fa nekk croisement Saly mais ku bu ñu ñëwoon Mbour maanaam Mbour régulier wuñ la yenn saa rek ñu. da dem a wóor mooy samedi. mooy samedi ajjuma Touba jeudi Kaolack. ajjuma dimanche dimanche Saint-Louis. dimanche Saint-Louis ñu nga fa kon képp koo xam ne nga soxla nga Serigne Medoune Seye borom tawfeex numéro yaa ngi noonu ci dëkk yooyu ak euh, jour yooyu nga koy fekk dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara ah. te mën na lépp yaa ngi doon toj ci diggante hépatite B ak cancer ba ngay wax mu waaw ma ni cancer mooy loolu mooy ñu mel ni waaw ci gàttal buñ ko doon tënkaat dafa mel ni hmm. mooy dof waaw société bi ni mel nii waaw dof bi ni mu ci société bi waaw ci cellule yi loolu mooy cancer ci nit ñi ci nit ñi pour ñu tënk foofu. Mhm. hépatite yaa ne hépatite B. yaa ngi teg B bi. waaw est que am na ay ñoom A ak C ak moo waral. waaw B gën a siiw ak xeet googu. waaw sànq rek xam nga gaa yi moom. Mhm. dañuy wax loo xam ni duñ maîtriser li ñuy wax dañuy wax rek. Mhm. topp ci B bi rek. mais déjà hépatite ñaari baat la. hépa ak tit. hépa foo ko déggee dafa am terme yoo xam terme médical la science la boo nee hépatite coppite day xam ne kii lan ngay wax. hépatite. hépa foo ko dégg ci moo mu jiitu ko res lay wax. Pas moins reste. tout France dafa de foie mais terme médical EPA lay wax pas dégg hépatomégalie etc et cetera EPA mooy res it baat boo dégg ci faj mu jeexee it xam ne da lay wax infection wala inflammation donc bonne hépatite c'est l'infection ou l'inflammation du foie Madame, reste bi feebar bi mu am à xam ne moo xam tooke la moo xam feebaru boppam la bu ko dal ñu hépatite Madame, am nag ay xeetu hépatite da ko Mhm. am na hépatite par intoxication maanaam nit ki ca la muy lekk yu mel noonu mën na ko indil hépatite lu mel ay tétrachlorure de carbone yooyu mën na joxe hépatite mais boo fi ñuy wax hépatite hépatite B loolu la ñuy wax hépatite virale dafa hépatite yoo xam ne virus moo koy joxe. Mhm. am na hépatite yoo xam ne ay bactéries ñoo koy joxe virus yi nag dafa am virus de l'angine de l'hépatite B muy HBS moom ngay wax mais am na hépatite A. amna hepatite C amna hepatite D def amna hepatite delta delta -hmm. amna hepatite E yep ay xeetu hepatite la virus bi microbe la microbe micros petite vie langue la bo xam grec la parce que médecine ci grec la jogué ak latin micro moy lu ndaw obi e mooy moy minda fon bu ndaw bi ci biir mu am bactérie am virus ñom ay parasite lañ parasite batu grec la parasite moy kuy lek ci wet nit ci quelqu'un quelqu'un qui mal à côté de manam da wax ni yoy dañuy dugg ci biir dund ci biir mm-hmm. ñu melni ni jinax ji nekk ci biir kër gi rek te bokku ci kër gi wa di yakal wa kër gi di yakal wa kër gi bo gasé mu gas bo gasut mu gas nga am benn buntu nek mo am ñetti buntu moom da fayut location <laughs> virus ñol lañ mel ak bactérie bactéries yi mooy yi nga xamante ni moom day dund ci yow te du la yàqal mais virus daf lay dundee. daf lay dundee au lieu de moo tax virus baat la tey mooy tekki poison tooke da lay dundee maanaam day ñëw fekk say cellules yooyu ma la ko xam ne naa ne cellule noo constitué nit cellule yooyu lay jël ñoom ngurfaan leen dëkk si ñoom soppi leen def leen ñoom comme ni nguuri di def sax pour def ko nguuri noonu la koy def day ñëw jël cellule bi. ngor faan ko dëkk cellule bi def cellule bi muy moom mhm. moo tax virus grave mais en tout cas comme li nga wax moom moom bu déclenché neexul dagg parce que maîtrise na li muy wax bu baax a baax ah. mais man comme léegi damay bëgg toujours àdduna yii moom di biir dajee ci biir tegtal ah. mooy xam-xam maanaam nit ki xam am man bu ko mënee am rek mooy li gën ci àddina defe naa ah. léegi nag ki nga xam ne que cancer ak hépatite B yëpp sonal na ko léegi yow da ngaa jàpp ne loolu mënul wér wala man nga koo faj ba mu wér. hépatite dañ koy faj ba mu wér. Hmm, hépatite. cancer dañ koy faj ba mu wér mais. Hmm. cancer am na fu muy toll nit ki day dee dootul wér. Hmm. dafa am moment boobu da am possibilité faj ko mu wér. am na moment boo xam ni danga am possibilité retard de processus bi. ñu dina am cas nga xam ni kii kat fi cancer am toll ala kulaale day dee. léegi boo amee client bu mel noonu nooy jëflante ak moom da ko delloo xaalis bi yëpp ñaanal ko rafetal de wala dëgg xam nga. nit dana ñëw nga xam ni kii kat boo ko bàyyee fii ak un mois mu dee da nga xam mu nga ko traité mu dundaal yeneen deux ans trois ans nga retard de processus mais da nga xam day dee. est ce que tamit comme fajkat wolof ni weexal dungu mhm. lolou tamit wóor na xamne ki lemu baye ko fi mhm. nga jéem du ko yokk yok prolongation ba problème fekk la ci wóor na non comme léegi far mu jël garab bi après ñu ci suba mu dé ñu ya ko ré yooyu <laughs> wa non yooyu moom c' pas grave mhm. parce que xam nga pas grave nit ki mom limu xalat rek lay doxé xam nga nit ki ñew feebar sonu lool ñew far nga ñew fa ñu jox ko ben garab mu dem añ nan ko sonal na loolu far mu dee ci seen garab ñu ne bon naan na garabu Cheikh Taalib bi ay quatre ans. kon loolu ko man de tamit. waaw ah. léegi ñu kon diw moo ko hmm. mais bu fekkee dañ laa wax man ma ko mais bu ma ko ah, xam ni man maa dugg ci métier moo xamante ne kat. dafa am ay risque mais yàlla xam na ni rayoo ko koo xam dafa feebar processus évolution bi dem ba nga xam ne moom mi ngi ci septicémie nga xam ne daanaka kii moom dee na. nga koy dimbali jox ko loo xam peut-être xam nga da nga ko jox garab fekk sa fa da nga jox pour di pour dindi métti sa métti bi mu arrêté ci saa su quoi yu mel noonu mais bakkan yàlla moo ko yor dee ak dund yàlla joxu ko nit moo ko téel boppam loolu ay détail la mais li ko war day di nga ne mbokkam kat kii day faatu mais doo ko wax moom mm-hmm. ñëw d'accord sa ko traité nangam nangam am leg jox ko leg leg léegi léegi léegi ñu dem bay génn nga ne eh yow pardon kaay mu ne toog nag pardon waa dem leen mu toog nga ne ko mais nag kii fi ñu tu l'explique loolu moom say xeetu kii la xam-xam bi quoi waaw xeetu communication bi quoi mu xam ni kat mbokkam bi kat day faat man bu la ko dara lu mu soxla defal leen ko jox garab yu calme métit bi ngeen tey xam ni c'est fini mhm. ñooñu duñ ko parce que ku war a dee mhm. nekk wenam nga ne ko da ngay dee yaa ngi koy yokk métit ah, dafa am nooy communiquer mais ay mbokkam dañu xam yow avisé nga leen ni kii

foie mën a dem mais foie mën a dem ba def carcinome cancérigène indi ay acide biir bi neew yi tànk yi neew yi lu mu lekk di ko wàccu mu am problème trouble circulatoire yu mel noonu loolu mën dem ba am mais bu amee da ngay xam nga faj ko mais nag hépatite B rek amul bëri na façon hépatite hmm. am hépatite virus la koy joxe am na yoo xam bactérie am na yoo xam ay hmm. euh, tookee moo ko joxe muy par intoxication jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission Tektal ñuy dalal kii di Serigne Medoune Seye borom tawfeex defena naa ngi setan tektal bu am njëriñ bo xamna ko xam-xam a ngi feeñ ñu ngi ko waxe rek xewal dik lora nga euh sëñ Medoune sey borom tawfiq benen mbir bo xamna ko dafa jaxal askan yi trop euh mutation tension doon lo xamna ko ñi dañ bu yéegee demé na nii bu wàccee demé na nii pour bu normal bi jafe na ne man na normal ci suba gi ngom gi mu indi lay problème lu jafé li jënti dal walu mutation sabab bi lan la ak bu dalé nit ki nan lay xam ne moom ko am ak lu koy dindi lo tension du feebar mhm. tension ñëpp ko am. ñëpp ko am képp kuy dund am nga tension. képp ku dee amatoo tension. kon ku ne day faj tension ñu ne ko tension du feebar. tension ah, ah, nit ku wér boo deewee ñàkk nga ko. normal gën ñàkk normal. ci li nga wax laa tamit baatu tension bi nga wax. Mhm. xamul ni tension. yàlla nu mu bis ma ne la nit ki yaramam ci cellule yooyu ma doon wax sànq. Mhm. dañu war a lekk war a naan war a dund soxla ay ferñeent yoo xam ne yaram bi mënu ko defar nit ki soxla lekk yaram bi togg lekk bi reesal ko jël vitamine mooy ferñeent yi lu mel ni vitamine A yi muy li ñuy wax B yi muy riboflavine yi cobalamine yi niacine yi acide pantotonique yi euh, vitamine H yi vitamine K yi anti hémorragique yi biotine yi silice yi sélénium yi phosphore yi calcium yi magnésium yi yoot zang yëpp ay ferñeent la yoo xam ne doomu aadama da ko soxla pour cellule dundee ko mais bu ko nit ki lekkee ba pare ba mu dem ci kii bi dafa am ko ko war a yóbbu ci cellule jox ko xam ku ko yóbbu deret bi xanaa moo deret comme oto rek deret oto la xol chauffeur la xol bi mooy dawal deret bi deret bi mooy yenn bagage yi yëpp li gaa soxla dund bi yëpp di wër cër yi cër bu ne mu fëgg la jox la la nga soxla dindaale say mbarit koy jox problème circulatoire circulation bi xol bi moo koy pompe bu pompe yóbbu li mu war a yóbbu mu pompewaat indi li mu war a dindi sànni ko salte yi moo booy xool nit ñaari xol ñaari pàcc la moo dañuy wax cœur droit cœur gauche xolub ndeyjoor xolub càmmoñ xolub càmmoñ bi mooy deret bu xonk curr bi moo gis nit boo gisee mu dagg deret bu génnee dangay xam deret bi fan la jóge ci veine yi la jóge moy sidi yi nga xamne ne ñooy deret gi depp gi di ñibbi wala ci artère yi deret bi yobbu ki ne ci alé bi wala ci capillaire yi mooy diggante ñoom ñaar fi ñuy weccante veine yi ak artère yi xolum jor bi dafa am lu ko composer cœur gauche bi muy ñu wax oreille gauche ak ventricule gauche ci digënté bi am lu ñu wax valve tricuspide valve mitrale bu fa jógee def ben échange ma da réunion la grande circulation ak la petite circulation moy dawilu direct bu ndaw bi ak dawilu direct bu mag bi dugg mhm. fa dem ci oreillette droite bi dem ci valvule tricuspide bi dem ci ventricule droite bi mhm. dem ci artère pulmonaire bi dugg fa deux doog doga dem ci artère aortique bi mu koy dogu yob yóbbu mhm. dawil la genre tali dal daal koy régler mom pour muy leer wa dama ni tension opéra daw bobu direct bi di daw xol mi di ko manque di sanni direct bi di wër sidit dem ci artère dem ci veine yi fa dem ci xëtër bi dindi oxygène gaz carbonique def ci oxygène yob circulation boobu daw boobu loolu mo tudu tension c'est la circulation du sang à travers les artères dawinu dreb bi loolu lañ wax tension ñëpp ko am ku sa deret dawatul nga dé xol bi di pomper systolique manque sànni diastolique téye ñuy wax maxima ak minima yi nga xamné ne deret la di séddale dund di dindi salte du di

dañu ne la tension normale treize dix treize treize huit maanaam maximum bi nekk treize minimum bi nekk huit. Mhm. muy treize millimètres de mercure. àdduna lépp dafa am lu ñu koy mesurer ci diisaay bu doon diisaay ngay wax poids bu dee ci mètre ñu ne mètre wala kilomètre. Mhm. bu dee ci géej ñu ne joule ñu ne hauteur ñu ne nangam ci médecine tam noonu la millimètre de mercure la ñu nattee dawinu direct bi. Mhm. dafa nekk diggante onze. ba 13. Mhm. Mhm. moy tension bi normal Que pour xam tension 11 ba 13 sa tension baax na 11 8 ba 13 8. bo ci 14 ba 15 ya ci tension bu nek mu ngi bëgg a 15 dem ah, mhm. kaw ci hypertension 10 6 9 6 9 8. 9 6 8 6. manque ak euh, ëpp gi bu ci daw bi ëpp bi moo gën a garaaw hypertension moo gën a garaaw hypotension tension biy yéeg moo gën a garaaw tension bi wàcc ndax tension biy yéeg mën nga tam AVC li ñuy wax accident vasculaire cérébral mu mhm. ne la ay paralysie mu ne la ay hémiplégie gauche wala hémiplégie mhm. droit wala paraplégie wala monoplégie tension moom noo koy fajee da nga jox nit ki ay garab muy mëq wala yu mel nii lay naan wala nu mu demee noonu day fekk nga xool tension bi lan moo tax bu dee buy yéeg da ngay xool moo tax tension bi di yéeg mhm. tension bi mën naan dafa yëg ndax xol bi mooy sànni sànni bi gaaw tëf tëf tëf tëf boobaa da liggéey ci xol bi nga bole ko ko jox ko ay bêta bloquant pour xol bi di daw nànk mm-hmm. parfois nekku xol bi mooy daw nànk mais deret bi ni muy jaare ci tuyau yi mooy yeex bu yeexee xol bi day koy bës bu baax pour mu ñëw kon loolu ko obligé mu daw nga ne kon ci artère la ci circulation veineuse la wala naa nga liggéey foofu maanaam benn façon tension amut day xool lu in gis nga faj mhm. nekku damaa ak garab bi ku ñëw lii nga ko jox déedéet da ngay xool li tax nit ki feebar ki mhm. ak ñeenti nit mën nañu am tension te kenn duñ bokkale garab kii xol bi moo am problème di daw bu baax nga war ko téye kii mhm. artères yi ñoo tëju sang bi di sukkar bu baax xol bi forcé kii rein bi ni muy seggee moo baax dafa la ñuy wax tension rénovasculaire da danga war a xam lan moo indi tension bi nga rectifier nga rectifier loolu léegi ñii ay bêta bloquant nga leen jox ñii ay diurétique nga leen jox ça dépend kon yow bu mën a déggee yow koo fajal feebaram bu ko neexee la feebar bay bañ sax mu kon ne di ko lekk. déedéet. voilà li tax li bi nga wéree. Hmm. li ko doon def ba mu ni la musiba. <laughs> da ngaa wéroon dara jotu la. Hmm. nga def mu ni la musiba. Hmm. ñu nga di nga faat beneen musiba la lay gën a indi. li tax nga feebar danga koy moytu. moo tax feebar. waaw faj ñaari pàcc la. prévention. artu ci faj la bokk. moom boo déggee médecine dafa am ñetti baat yoo dégg ci médecine prophylaxie thérapie pathologie prophylaxie mu ngi jógee ci baatu grec bi ñuy wax prophylactène di tekki prendre précaution de maanaam jël say jumtukaay ci nangam olof ne fagaru moo gën ci fajiin waxul fagaru moo gën faju de dafa ne fagaru moo gën ci fajiin façon yi faj fagaru moo ci gën bu mhm. wax ne kon faju fagaru kon faj la mhm. moo tax tubaab ne prophylaxie maanaam dee nag moytandiku lépp loo xam ne mën na laa feebar. nga mhm. moytu ko lépp loo xam ne boo koy def dina tax nga wér nga def ko. yaa ngi mhm. fañ moom la ñu am. Mhm. tubaab nag prévenir mieux vaut prévenir que guérir. xam euh, daw ci bi nga ami tànk yooyu ñëwaat foofu. waaw nit ki mën naa daw tam te du am tànk. Hmm? nit mën naa daw te du am tànk. mu daw xel day daw di dem da nga koy waajal sa xel ñaw njort. moo tax hmm? moo indi baatu ñaw njort. dàq hmm? baatu ñaaw njort. waaw ñaw njort lu baax la ñaw njort. mais ñaaw njort baaxut. mën ngaa daw nag taa mooy tànk nag ndax xel dana daw bët dana daw di daw bari na de mm. mais tubaab dafa ni mieux vaut prévenir que guérir mm-hmm. tubaab olof ne fagaru moo gën ci fajiin va du fagaru mooy tekk prophylaxie jóge ci prophylactine mm-hmm. prendre prévision mais prévention bi tubaab di wax tubaab olof sax moo gën a olof dafa ni fagaru prévention prévenir xot deeku lay tekki xotteeku balaa ngaa lakkale ak sangaru ba ak moo gën faju fajin bokkuñu kii kii xam ne dañ ne ko xotteeku balaa ngay le xam na ne lakk dana ñëw lu xoddi balaa lakk bi yegg si moom mais kii fagaru nag day fexe moom ba lakk sax du am far kooku gën a sori. waaw kooku ëpp solo de sax waaw. kii fexe ba la te tubaab baatu guérir la wax. Mhm. guérir mooy wéral lu feebar nga wéral ko. waaw foofu laa bëgg ñëw ci tension nag ki ko am nga wéral ko yow. te olof fajin la wax mooy baatu soigné moo waral ci médecine médicale ñuy bind thérapie nga dégg naan thérapeute thérapie baatu grec la moom it thérapeo faj je soigne xam-xam bi koy faj moo doon may wax nit ki bu fekkee yow nit ki xamoo nit xamoo feebar xamoo liy faj munoo faj moo tax médecin yëpp xam lu ñu jàng hmm. pathologie moo tax ma ne médecine science la pathologie ñaari baat la pathos logos latin la pathos science mooy mooy mooy affection jafe-jafe logos science xel ak xeltu ak xam-xam bi tax ngay mën a teggi li dal jëmmi doomu aadama bi mhm. hypertension tension du wér mhm. amoon naa tension léegi wér na amul fenn amul fenn tension dafa bok ci fay yoo xam ne du kep ku ne la day fac tension mu wér waxut dëgg dafay kàcc. xamal mo mën ne. waaw nit ki am hypertension bu day hypertension lañ wax lépp lo xam day tax tension bi yeug mu moytu ko bàyyi xorom guddi. xorom guddi. xorom guddi moy lan. xorom le xorom xorom xorom ndax xorom dafa am sodium. hmm sodium bi dañ lay tere. ndax sodium direct ñaal ci ne sodium potassium. xam nga dafa am ndox ku mel ku dem ci mayga bi jërul moy saf-saf guddi xorom guddi baaxul ci ko am ki ndax mhm. deret mhm. ndox la ak ay ferñeent lu melni ni leucocyte yi mhm. MAC yi plaquettes yi léegi yaa ngi lim xorom ak ban waaw dama ne si bëgg ndox mi la xorom bi parce que xorom day téye ndox géej gi la moo tax saa demee fekk fa ndox mi xorom ba fa nek bu xorom bi dañu boobu ñëwee da ngay fekk mu fer xana xamoo loolu géej xorom a tax du fer deret bi nek suñu yaram xorom si ci nekk moo koy téye ba duñ ñàkk ndox mi mais bu xorom bi bëree day téye ndox mi ba mu ëpp bu defee bi day yeex ñu tere la xorom pour mu bàyyi ko tuuti bu sa papa sax day gis ko am tension jox ko garab yoo xam moom la ñuy wax diurétique yi xam da lay lu ba nga day tuur ndox mi bu bari xorom da koy bàyyi yàpp yu duuf da koy bàyyi muy graisse mm-hmm. muy beurre muy nen lipides yi parce que dafay ñu ne daf koy diisal da nga koy bàyyi lépp lu yokk cholestérol yi muy HDL high density lipoprotein ak low density lipoprotein da nga koy bàyyi lépp loo xam ne nag dana la dimbali ci xool bi nga utiliser ko comme lan bari na boo ko waxee sa trafiquant yi dañ may kii rek. <laughs> mais xool bu si laa ñuy trafiqué mais xool ñiy seetaan am yaakaar. waaw lu mel ni ci seen lekkin. waaw lu mel ni laaj. xam yow xam-xam bi macha allah. mën na toog fii ba ngoon di wax te da ngay. lu mel ni laaj ñu koy wax allium sativus. waaw baax na ci ko am tension. Hmm. lu mel ni saxaw ñu koy wax combrantum micrantum. Hmm. baax na ci ko am. tension tension lu mel ni ngungun ñu koy wax osuleum basilicum. Hmm. baax na ci ko am tension. non non non foofu la duggoo la. non dara lay dox. waaw léegi kon li am solo mooy nit ki. lépp loo xam ne daa tax tension bi yëg mu bàyyi ko. mu bàyyi ko ba pare nag di ko surveiller. bu yéegee garab mu wàcc mu defar sa régime. mais bu fekkee mënoo am discipline boobu ba sa tension yow même boo defee régime jël say garab temps. nit ki lenn ci biir est-ce que mën na nekk maanaam koo xam ne à chaque fois tension bu yéeg ko doon sonal dem ba benn instant. bii tension bi au lieu que mu yëg ne dafa wàcc ba sonal ko mën na nekk ci mel nit ki. day fekk xanaa kay mu jël garab yi wàcc tension mu jël ci lu ëpp mu wàcc ko ba mu moom bu dee yëg bee koy sonal yëg bee koy bi wàcc di ko faj ak lu yëngal tension ko tuuti mu ko hypertension mën na nekk. mais contraire bi. moom mënul xanaa nga jël garab boo xam ne hypotensif la maanaam garab boo xam dafay wàcc tension. nga jël ko jël ci lu ko ba mu ëpp loolu moom mën na mën na nekk jërëjëf euh, sëriñ Medoun Sey borom taw feex nekk ci amoo tefe soxtaan bi mi ngi leer nañ ñi defe naa mi ngi dugg ci seen nopp yi te di jàll yéen koy capté bu baax a baax li li mooy njëriñal tegtal sans nga ñëw ci moom di faju wala di ñaan lu may nga toog fa nga toog mën a jëriñoo xam-xamam loolu mooy njëriñal tegtal bu baax a baax sëñ Medoun Sey euh, borom taw feex dafa am tànk yu métti yoo xam ne que day sonal nit ñi bari lool lool lool lool lool ci mag ñi moom daal ñi koy jàmbat kenn xam lan te xam naa ne faj ko yombul ndax ñu koy jàppal dañ bëri yow tànk yu métti loo man waaw man ay tànk yu yu métti loos yu métti bopp yu métti ah. yooyu moom jaaxal yooyu moom damay simpi sànni ah yooyu moom simpi comme ni guy gi it ku baax la. baax la sa xarit la bu yàgg. ku am kóllëre la. Mm-hmm. ku am ngor la. Euh, nee naa ko yoroo jikkoy mbër. dafa am kóllëre. dafa a dafa am qualité yu baax yoo xam ku baax a ngi xam naa ne mi ngi sën bi am kóllëre am naa nekk. Mm-hmm. su ma nee dafa am kóllëre dafa am kóllëre. kon jërëjëf guy gi kóllëre bi yàlla na sax ak keneen ku mel ne ko am kóllëre. kooku soppeeku guy gi du soppeeku guy bu amul ay milliards ni mel ni mu mel du soppeeku. jaar kon sant nañ la léegi da ngay simpi mu bokk na xam naa. nga ne da ngay simpi feebar yooyu xam nga ñëw simpi teg nañu. mais nag métti lu tànk yooyu dafa bëri tànk yu ci nekk dafa bëri. Hmm. nit tànkam mën na métti fekk yax yi la. Hmm. nit tànkam mën na nekk fekk articulation yi la. nit tànkam mën na métti fekk sidit yi la. nit tànkam mën na métti fekk deret yi la. moo da ngay xam lan moo tax kii tànk yi. mais en tout cas yow moom ku tànk yu métti moom. doo fi du fi nekk di bàggat. non buñ waxtaanee ba nga xam li ko ah. dañ koy dindi parce que yaa jubbalal ci jëm ci wàllu métti fi yaram rek hmm. ne yàlla nit pour nga faj dara fa nga xam yàq lépp lu mu laaj ba bu amee problème. Mm-hmm. xam nañ ko. waaw ah, yow daal bépp mag ak xale yëpp bu ñëwee nga rek. yëpp ci yam dëgg ma la lépp lu dal yàq wala mu dal wala mu dal nayam. Mm-hmm. ki ñëwee toog déjà xam nga tàng dana metti fekk nga foog yi la fekk deret bi xam nga tàng dana neewi te ñaar yi seen nit seen tànk neewi te kenn bokkul li ko dal. il faut nga mën diagnostiquer xam signes yi. mais xanaa da ngay mocc wala lu demee noonu loolu ay mocc la wala. non faj la rek du du du du kéemaan du dara. Hmm. day fekk nga xam lan la tànk bi dafa neewe lan moo tax mu neewe deret gi moo doxut moo yéegul wala lan la rétention la wala problème circulation nga xam lan la. Hmm. yax yi ñooy métti day fekk nga xam lan mooy yax lan moo composé yax nga mën xam ne yax kat ndàngam la 50 pour cent ndox la. cinquante pour cent ay solide la silice moo ci nekk calcium moo ci nekk phosphore moo ci nekk yaxkat bu nit ki amee problème ci tànk lan la mën nekk yuq bi la muy moelle osseuse bi wala jafiis bi mooy pax mi def yuq bi wala lan la deret bi moom lan la ci ni mu tolluwaay juróomi litre da ko mat wala manqué na ko leucocyte yi hémocyte yi dafa manqué wala manqué wu yooyu da koy xam mhm. neer yi ñoom la wala du ñoom parce que mën naa am nit ki am problème neer yan neer la ban neer la neer sciatique la L1 mhm. la L2 la L3 lu mbagas wala L4 cervical la wala coccyx la parce que nit dafa am nu mu bindoo ci neer rachidien yi ak ci neer crânien nga xam nga xam ne xam bu ci nekk lan lay dox xam li war a nekk ci ci nit ki dafay dafay dafay daal di nekk loo xam ni lu lu lu lu yomb la mais muy 31 paires neer rachidien yëpp neer crânien bu ci nekk. moo xam deret bi moo xam yax yi lépp man yax yi na ci doomu aadama yi benn bu ci nekk fa mu nekk bu amee lu ko mett nañ ko xam maanaam ñaar téeméeri yax ak juróom-benn yam ni ci nit doomu aadama ñaari téeméer ak juróom-benn yax yi mu am bu ci nekk fu mu nekk bu amee jafe-jafe daan wax nangam kon nit daal yaxam foofu rek la mën a yàq ci tolluwaay waaw nit 206 yax la am 206 yax ñaari téeméer ak juróom-benn même xale bu ndaw bu am 5 ans 206 yax la am deretu nit mag juróomi litre la xale ñetti litre jigéen ñeenti litre deret yi globule rouge day dund cent vingt jours ñetti weer globule blanc yi dund ñaar ba ñett fan plaquettes yi nga xam ne ñooy tax nit ki deretam du mën a tuuru nga xam ne ay coagulant la yu mel noonu anti-hémorragique yi di dund sax juróom-ñaar ba juróom-ñeenti fan hmm. lu ci nekk ci nit la muy dox fa mu toog fa mu nekk ak la muy doxee ak la mu war a doxee da koy peeg natt ko ba tax bu fa amé jafé jafé ñu mën ko xam mhm. jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission tektal ñu dalal ki di sëñ Medoune Sey borom tawfex tay ngeen gis mu yëngal rcs di jaxal rcs sap sap ci rcs ngeen di jariñoo xam-xamam bu baaxa baax mo xam ne ko buy wax day mel ne rajo boo taal rek déclenché bàyyi noonu oh. té nak li ñu bëgg moy kuy weddi nga weddi ndax xam na né li ñu wax ah jafé na weddi dédé dama waaw xeeboo leen nag dafa am ñoo xam tamit bu yàlla wàccoon ñu corrigé ko mais fu ngay wax déedéet déedéet dëgg dëgg moo la man waxuma ak ñenn ñi xam nga lay xam waaw borom xel yi borom xel yi ñu xam ñu xam am xam-xam xam nañ ni mooy weex na wala ñuul na jaana ñi xam ne dañuy kii jooju xam ko nga Sey borom li wax mais sëñ Madou nag benn affaire moom a jaaxal lool ci yow fi mu nekk nii. Mhm. buñ paree émission bi dinaa sonn. Mhm. parce que man mii la xam nga xam ne que sama waay nga sama xarit nga sama lépp nga. man mhm. na maa toog six mois duma la gis. man naa laa bëgg a jot du ma la jot. est-ce que comprendre yóbboo jëm comme client bi nga xam ne que dafa nekk ci jafe-jafe. Uh-huh. am yaakaar ginnaaw yàlla. Uh-huh. pour nga saafaraal ko ci kii boobu. Uh-huh. jafe naa jëm toog jafe gis. mais mais ci liggéey bi du jafe ndax liggéey bi. waaw boo jaaree fi nga war a jaar rek. waaw danañ gisee. waxtu fa nga war a nekk. ba nga boo fi ñëwee ak waxtu bi nga fa nekk danañ Mhm. comme daal mardi bu jot bu nit ki ñi bu bu jot ñu ngi fi numéro yi 77 390 53 53 boobu ku ci nga ko jot dana mhm. bu dee Thiès am na keneen koy jot mhm. bu dee Touba am na koy jot bu dee Saint-Louis am na koy jot bu dee Kaolack koy jot fu ci ne am na ko wax moom nga jot mu wax la li ci nekk yëpp dañu am bu ñu dañuy xëy ba wàcc jeex na ban ba ban heure dañuy xëy rek ah, waaw heure bu nit jeexee ñu wàcc tanka ñu gis mu liggéey ñu liggéey kon Nabil say borom tawfeex bindal bindal mer foofu bu dee mënul bindal boppam paamu tamit bu di neexul ki wax ci salle bi mu noppi yow mu jàpp ci TNT bi 10 bi SS moo koy toj moo yëngal numéro 10 77 390 53 53 77

ñenn ñi dañu dem ba naan dañu dofloo nit ñi parce que dañuy taxaw ay sangoon lii ci sele ba yoon defoon lii takk ko nii defoon fii boo jaaree fii duñ la gis ay xeet yoo xam ne que kenn mënut bi ci ëpp gën a ñaaw nag boo xam na que damay jàpp ne wut dara jaru ko mucc ci dara jaru ko dund yàgg fi te sax jaru ko am alal jaru ko mooy dugg ci armeel yi di summi summi sulli bàmmeel yi jël càngaay yi di dindi xaar xeet yoo xam ne que daal yow mën a dégg ci seen ci tele rek mais dégg bi rek dafa ëpp ci dégg-dégg yi mel noonu te dañ naan ndigalu sëriñ la ñenn ñi jiñ ko way politique yi ñenn ñi jiñ ko way nawetaan yi ñenn ñi jiñ ko mbëri ñenn ñi jiñ yu mag yi kenn boobu daal mooy loolu. ak xam dañoo bëgg di gën a am nit. waaw waaw yëfu dof yi ah. waaw waaw ah, mais nag mais nag ah. ñi woowee sëriñ <laughs> ñi woowee ah. wax am na ñoo xam dañu leen a woowee sëriñ waaye duñu sëriñ. est ce comme ñooñu xam nga sëriñ boo koy bind ñaata lettre la sëriñ. non du problème lettre sax. ñoom ñu wàññi lettre yi tuuti ñooñu ñu tuddee leen noonu. non non xam nga sëriñ sëriñ këriñ. déedéet olof la. Mhm. sa njëriñ ku lay sa ay njëriñ. maanaam ku lay jàngal. Mhm. sëriñ ustaas la maître la. tubaab sëriñ maître la koy wax. Mhm. arab na ustaas ku lay jàngal ku lay sa sa mooy jàngal ay njëriñ. ñi ñuy sëriñ. lu ci bëri duñu sëriñ. ndax duñ def li ñuy def du njëriñ waaye nag da nga ne da ñoo dof la ñu déedéet daa fekkoon noonu dof ba noppi sëriñ doog leen ràngat <laughs> waaw nañ ba noppi. mais yi ñu waxal na ci bu baax ma xam waaw lu ko jar quoi. ay sulli néew ak xel waaw nga mooy mm-hmm. Mm-hmm. boobu laa wax. dañoo dem ba seen xel ak seen xaar réer réer ndax lan am amu àdduna. jaral na leen lu ne jaral na leen loo xalaatut jaral na leen ko ci am-am te xamuñu ne am-am ñaari baat la danga naan kii am kenn kay am day fekk lépp lu jóge sa loxo ci loxo la jóge woon dem ci loxo te day jógewaat sa loxo dem ci beneen loxo. ñu ne am am. Mm-hmm. séddale ko am. teel am teel nga ne am mais yow la jóge. Mm-hmm. olof ne alal alal baatu àll nga ciy dégg. ak aal lu mu la aal mais lu la abal das koy delloo kon saa nga ne armoire armoire ak armoire ñoo nuroo armoire loo fa defut doo ko fekk armoire it loo fa defut doo ko fekk bu demee nag ba doomu aadama jël moromu doomu ni moom nekk ci bërëb ndax dama ne ñooñu nekk ci bërëb boobu def lañ daan def ñoom ñun li ñuy def nii lekk soxla yi ñoom loolu lañ daan def ñun ñoom la ñuy def nii ñun noonu la def yi après. Hmm. dégg nga fi naa fi may wax baax. ñoom lañ daan def ñoom la ñuy def nii ñun noonu la ñuy hmm. ku xam ne nag bis dana ñëw ñu daaj la foofu gas ba mu xóot dugal ci pax mi sax yi. wetal leneen te doo mën dara sa bopp déggoo li ma xalaat ñu jéem la sax dañoo mënul seen bopp dara sax nañu doyloo xam ne àdduna lu doy am àll ci wax ci lu ruy quoi parce que dafay metti metti ñëpp quoi waaw ñu bëri ñu naan dafay metti metti wu leen def nañ ko boo poñ woon fii ñu ko deful ci dëkk bi fii wala xeet du mel noonu hmm. boo ko ab saam saam bi du fa jóg man nag dama jàpp ne soxoraay moom xalaat ko ci xel rek ëpp na génne ko ci làmmiñ rawatina. mais même jëfandiku xam nga àdduna. waaw bu njëkk. boo seetloo ci mag ñoom dañ naan affaire sarax. Mhm. dañ naan saraxal lu mel ni dugub. Mhm. saraxal ñebbe saraxal meew saraxal soow. Mhm. affaire yi yéeg ñu bàyyi soow dugub ne léegi saraxal ginaar dama def mu jógee. jékki-jékki ñu xeeb ginaar. parce que daawuñu rey soow ak leneen ñu ne ginaar jóge ci ganaar na xar jóge ci xar na nag na bëy na gëlëm léegi lépp luy xeetu bàyyi ma rey nañ ko saraxe nañ ko xam lan moo la si duñu saraxe <laughs> nit seen fa xam nga ko tawal am am daraja màkkaama yëkkatiku place eh, dafa am sens cahan, la nañ doylu te xam ne lu doy amu fi lu ñu doyloo moo fi ne leen lenn li naan lu waay def boppam. adduna sa bopp nit ki bis boo xëyee. yaa ngi gën a jege dee. seconde bu ñëw yaa ngi gën a jege dee. boo seetlu ko ci sa anniversaire rek anniversaire bu jotee nga ñëw di ko feete di kii yu mel noonu xalaatal li nga waroon dund benn at wàññeeku na ci nga am xel bu baax a baax yu bàyyi yu bon yi. te def deug te xamne waye nak dama doon bu ko ci am defal nak mom nak mom affaire bon bon mom hmm. ya ko bëgg dugg sax ci affaire armée yek sulu ñew Sénégal dañuy xey so bon lepp lu bon rek lañuy def nak hmm. sacc waaw fen hmm. wuruj triande jëw sulu ñew yépp ñoyam ramba jax Sénégal bu xey goor goor gi sey jigéen ak jigéen gi sey Sénégal li fi ne oh, ko mëna wax mais yépp ma ma ma ñun nak mais nak yi mo soppeku jikkoon jàpp foofu lay tàggu bu tàggatoo émission bi tàng na neex na. damay ñëwaat incha allah. waaw ñu lay moom suñu mbir mi si sa kër la. waaw boo ko ne nañu waxtaan si. te sa waxtaan bi. Mhm. dañ ko doon tënk rek. waaw ndax tàmbali. mais dama bëgg na beneen bu ñu waxtaan ñu jël benn feebar kese. yem ca waxtaan ko faram fàcce ko. jël benn fait de société wala benn mbir ci wàllu baatin mu toj ko. ñu mhm. mën ko di. sant ko gërëm. may ni maire bu baax nak waaw kooku mooy aja aramatulaay soog moo ñu ngi koy nuyu baax yàgg loolu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp xam nga dañ naan ku lim juum waaye ku lim doo juum da nga dul matal waaw ku lim doo matal waaw moo tax du ñu lim waaye daal ñi ngi sant ñëpp di gërëm iya, iya, ñëpp di ñaan suñu borom mu defal ñëpp jàmm amin amin lu ci waay yóot yàlla na ko jot lu ci waay ragal yàlla bu ko gis jërëjëf eh, mbokk yi nga xam ne que ñi ngi doon seetaan seen émission tegtal ma joxaat leen yoon bu mujjee ni numéro ci biir émission bi numéro Serigne Medoune Sey borom tawfeex bindal bindal maire foofu bu dee mën a bindal boppam paa bi tamit bi di neexul ki wax ci saal mu noppi bind nga 77 390 53 53 77 390 53 53 wala nga def beneen bi 76 498. allo 52 52 76 498. 52 52 wala nga nga fekk sëñ Medoune Seye nga fekk ko ci amoo tefes nga fekk ko fi diis ko si soxla lu mu ci mën mu def ko la ngeen ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëlewul dara te mën na lépp di jaajëfal ñi nga xam ne que dañuy béggee tegtal bu baax a baax ci mel ne Pape Seydi madame Thiam ak doomam Dieyna Thiam ak Kolle Thiam ak Aji Soxna ak Dafala Ndiaye di leen jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal Kolle Fall ak ak Ndeye Ramatulaye Ndeye Ramatulaye. Ndeye Ramatulaye ñu ngi koy ak pour Cheikh Omar Gueye nekkoon ci benn caméra bi beneen caméra bi ak réalisation bi Amadou Kébé bu cité du Sall ca asalem nekkoon ci filmé na tey sonn na indi na plan yu nice daal tegtal ñu gën ko yaatal xëy dikk loraa nga dakk madame Fall nekk ci montage bi madame Fall tegtal boo mën gis ak yaa ngi gis koy dégg ci régie bi Pape Ciss ak Alassane tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraa nga dakk sëñ Medoune Seye borom taw féex dikkaat dikkaat te taw féex yi jaay ci mbedd mi Medoune Seye borom taw féex nee na moom rek a tudd borom tawfeex ci àddina bi ci fajkat yi ñaankat yi waaye nag ay garabam du jaay ci mbedd kon beneen bu leen gis tudde leen ko feneen te dañuy ut sama dañu naan man maa ko moom waaw bu leen neex nañ tuddee lu leen neex nañ nekk ku leen neex waaw nañ moom tur bu leen neex mais nañ na ñoom ñoo ko moom rek man moom ma ko te Médoune Seye nee na amoon na Facebook waaye tëj na ku leen fi gisaat du moom waaw borom tawfeex yooyu tëj na jaajëf tegtal bi gën ko